moo ñu gën a xamal kan mooy sëñ Mor Jaara mm. xam nga sëñ moor Jaara ku ñuy yeex a waxtaane la waaye ku neex a waxtaane la mm. <clears throat> ndax ñi sës ci moom ci ak bokk ñoo ñu wax mooy kan mooy sëñ moor Jaara mm. la neexee nga tàmbulee ci sëriñ bi am na lu ci sëñ wax ñu kan mooy sëñ Mor Jaara waaye tamit bu la neexee nga ñëw ci mbokki boppam yi nga ñoom la bokkal moo xam ci kër Sëñ Mor Anta Sali wala ci bokkum Bousso bi kenn ku ne ci ñoom dafa am diggante yu ratax yu ab jëflante bu yaatu boo xam ne bii moo nekkoon seen diggante ak Sëñ Mor Jaara la kenn ci ñoom waxoon muy Serigne Modou Bousso moom Sëñ Mbàkke Bousso waxoon ne muhammadu jaaral murtada man bi sabqihi mhm. aqarra zawul xurba maan kal ajaani bi zawul xurba maan mhm. mooy siñ war jaara li doonoon mhm. ay bokki boppam ñoo ko ko njëkk a nangul relation bi mu amoon ci digganteem ak ay mbokkam boo ko xoolee da gis ne moom kat seen wayjur daanaka fiñ fiñ fiñ jote ci seen histoire dafa fekk seen wayjur nekkatu fi mhm. te moom moo mag ci doomi Sëñ Mor yi nga xam ne ñoo fi nekkoon mhm. loolu nag ñàkk gim ñàkkoon a nekk ak Sëñ Mor Anta teewul mhm. li waroon a am ci digganteem ak njabootu Sëriñ Mor Anta yépp am na fa te loolu boo xoolee ñoom li ñu bind ci moom mm-hmm. boo jëlee maam Thierno li bind ci moom mooy mm-hmm. ñetti bayitam yooyu nga xam ne mm-hmm. siiw na lool te bind ko ci moom ci ziar boo xam ne bi ñëwoon na fa ànd ak ñenn ci magi taalibe yi bañ waxante fa lañ fay waxante ba muy bind boo xoolee rek dangay ngay xam diggante bu rattax ak bu yaatu bi nga xam ne moo nekk diggante Cheikh Ibrahim ak Mamor Diarra ndax ca ba muy tëj bayit yi rek lam ca wax mm-hmm. mooy mooy mooy li gën a yéeme muy alhamdulillahi mm-hmm. fi wifqi zamani bihi wa kaana suqdatu fi l arabi wal ajam euh, maam Thierno day day day wax ci Sëñ Mor Jaara mm-hmm. ba bi muy daaneel mu ne ñu ngi sant yàlla ci tase giñ taseeg maam Mor Jaara moom xam nga kooku kon seen diggante diggante bu yaatu la woon diggante bu rattax la woon maam Cheikh moom boo ko jëlee moom niñ jaxasoo woon dafa yéeme. Mm-hmm. moom daanaka ci ñim gënoon a jaxasool ci ñim bokkal la bokk. Mm-hmm. nga xam ne yu baree bari da dañ cee duggante. ba ci mm-hmm. njaboot yi seen njaboot yi sax ginnaaw bi. dañoo am ak duggante bu baax a baax. maam Cheikh Anta fa jug. ci jamono yi nga xamee ni sëriñ bi mi ngi njaareem. da daa def saa yuy dem njaareem faw day njëkk jaar ci Maam Mor Jaara ba noppi. Mhm. door a dem ci sëriñ bi. Mhm. loolu mos na ko wax ne li tax mu ko daa def mooy euh, képp ku jóge woon ci wet yi dem njaareem boo demee ci sëriñ bi te jaaroo ci sëñ Mor Jaara dala koy laaj ba mujj ker moo la ciy fekk. Mhm. faw dana jaar ci moom nga xam ne bu demee ci sëriñ bi kat bu ko laajee sëñ Mor Jaara mu mën koo wax euh, la nga xam ne. ba mu fa jaaree moo dox digganteem ak moom. Mhm. nekk diggante bu sori boo xam ne bii euh, taxawu na leen ci fànni xam-xam yu ci baree bari. Mhm. moo ko jàngal. Mhm. ay mbokkam ay rakkam. ci baree bari ci fànnu xam-xam yi moo leen ko jàngal. suñ moor am na lu mu ci junju. ci digganteem ak sëriñ bi. kon nag ñi ci des ñëpp noonu la demee. Euh, boo xoolee digganteem ak euh, ñi ci desit mm-hmm. noonu la diggante bi demee nga mm-hmm. xam ne daal mën nga koo tënk ci mm-hmm. la sëriñ Cheikh coro waxoon te kenn la ci ñoom muy faqad naa waalidan min qablu laakin nasinaahu bihi katri xuyul ne sëriñ Cheikh coro dafa wax ne ñun njabootuk sëriñ Mor Anta bi ñu ñàkkee suñu way jur Maam Mor Jaara moo tax ñu fàtte ne amatuñu way jur ndeysaan gannaaw hmm. sëñ saahidun min ahliha hmm. loolu moom day na sëkk Cheikh Coroom mi nga xam ne moom la bokkal hmm. benn baay waxut waxut ne man man bi ma ñàkkee way jur waaye faqat naa la wax maanaam nasinaahu bii mhm. lépp daf ko boole ci njabootu sëñ Mor Anta Sali wane mhm. nim leen taxaw woon ak nim leen nekkale woon wuutu woon mhm. way juróom ci ñoom daal leen taxawu ci fànn yépp ci fànnu xam-xam ni mu ko junjee léegi waaye tamit li nga xam moom la daa fàggu ci masa fàggu itam dugal na ci ay bokkam gis nañ suuf yu baree bari yoo xam ne nii tey ñi ngi koy tudd di ca tudd sëñ diw sëñ diw mhm. te ci cosaan ñi xam-xam nañ ne suuf si suufu Ousmane Mor Diarra woon mhm. waaye moo ko jox rakkam ji wala moo ko jox mbokkam yi loolu am nañ ci ay ay ay ay kii ay suuf yu baree bari ay mhm. dëkk yu baree bari yoo xam ne nii xam nañ ko ci mu nekkal leen ci taxawu leen dafa am lu sëriñ Afe Ñang mas a wax lu ama am solo mu ne sëriñ bi tànn gi nga xam ne moom la ko suñ tànn mm. mission bi nga xam ne moom la ko joxoon mm. war koo taxawee dafa nekkoon mission boo xam ne bi li ci aju dafa bari mm. muy nattu yi ñépp nga xam ne sëriñ bi kon natt yooyu muy toggoo ngir jëmmal mission boobu nga xam ne moom la ko suñ borom teg tax na yu ci baree bari ak jotam dootu ko ko may mm-hmm. moo xam ci biir bokk gi moo xam ci taalibe yi mhm. sëriñ Afe wax ne nag loolu nekkoon ci loosu sëriñ bi mhm. ni mu diise woon tax na mënutoon a ñàkk mu am jëmm joo xam ne jii dana mën a taxaw taxawaayu sëriñ bi ci bokk gi mhm. ak ci taalibe yi ne nag jëmmi suñ moor jaare ji loolu la ko suñ borom waajale woon mu fees dell palaasu sëriñ bi nga xam ne xat-xat yi lu mu ko tënk-tënk du tee am na jëmm ju fi nekk joo xam ne ji man na ko wuutu ci lépp loo xam ne nii moom la waroon a def ci biir bokk yi man mhm. na ko wuutu ci lépp loo xam ne nii moom la waroon a def ci digganteem ak taalibe yi mhm. loolu moo tax digganteem ak euh, ñi nga xam ne ñoom la bokkaloon Sëñ Mor Anta mhm. du ñàkk xëy na buñ egsee ci wax yi nga xam ne moom lañ wax ci moom ñu indi xasida euh, sëriñ sëriñ sëriñ Cheikh Thioro gi ngir mu ngir mu firndeel Mm-hmm. waaye diggante bu ratax la woon boo xam ne bii mm-hmm. ñoom mën nga ne waajur lañ ko jàppe woon mm-hmm. ak sëriñ lañ ko jàppe woon ndax nag ñu ci bari lim leen mage dafa bari ba daanaka euh, waajur daanaka waajur la nekkoon ci ñoom loolu moo firi waxiinu sëriñ Cheikh Thioro yi ci ñàkkoon nañ waajur de waaye jaar a tax nañu tax nañu fàtte ne amatuñu waajur loolu doxoon ci digganteem ak bokk yooyu nag moo doxoon ci digganteem ak bokki Mbusoobe yi mm-hmm. xam nga Sëñ Mor Jaara moom mën nga ne daanaka Mbàkke aw sant la fa mm-hmm. neexee nga ne daanaka Mbàkke aw sant la fa jële ndax lépp léppam daan moo tax moo doonoon mën nga ko wax ne moo doonoon taawub sëriñ Mbusoobe mi nga xam ne moo moo meññi bokki Mbusoobe bi mm-hmm. ba tax na diggante yu xóot te jaxasoo moo amoon seen diggante moom mm-hmm. bokki mbusoobe mi mm-hmm. wax naa léegi ci bayit woowu nga xam ne moom la sëriñ muudu busa wax ci moom te defoon ko ci ndigalul way juróom sëriñ mbàkke buso bi nga xamee ne bi sëriñ moor jaare jóge na fi mm-hmm. di firndeel ni mu yilife woon njaboot gi ak ni ko njaboot gi nangule woon am na ku ñuy wax sëñ moo roqee bu sa def na ci moom ak xasida bu goo xam ne gi moom itam am na ci biir bayit ya fu muy waxee mhm. xaada kullal wara mhm. bi xuluxin wa diinin mhm. wa saqaain wa fitnatin wa buruuri di wax sëñ Mor Jaara baax gi nekkoon ci moom ak ni mu jiitoo woon njaboot gi ak kilifteef gi mu doon doxal digganteem ak njaboot gi te lépp ci taxawu leen ngir ñu mat li ñu doon mhm. ci fànn yépp nag boo mhm. jëlee ci fànnu xam-xam mu taxawu leen ci ngir ñu mat liñ doon mhm. boo boo jëlee fànnuk riyaada mooy tarbiya ak ya ci aju mu taxawu leen ngir ñu mat liñ doon masha Allah noonu la ko Sëriñ Mor Rokhaya Bousso waxe boo xoolee itam ci ak dundam jëflanteem ak bokki mbusoobeem yi da cee fes lool daanaka mës sa am lennam lum leen lum leen sóoraalewul léppam da leen cee sóoraale. loolu moo tax sax euh, xam naa bi mu nelawee. Mm-hmm. sëriñ bi wax ne sëriñ bu soobee de fa mu tëdd. bu mm-hmm. yàgg ba léegi mi ngi may laaj wettal te sëriñ moo Jaara mën na sëkk wettal digle nan nañ ko yóbbu ca barab bu soobee. Mm-hmm. loolu di gën a jëmmalaat ne. diggante bii nga xam ne moom la suñ borom dogaloon ci digganteem ak bokk yi tam rafetoon mhm. rawatina digganteem ak kër ndeyam ndax suñ ko lépp mhm. moo ko defal lépp mhm. te lépp rafetoon diggante booba itam ni mu demee woon ci àdduna yitam noonu la wéyee ca barzaq ndax ñoo dëkk. macha allah dëkk fa mu nekk ba tey. macha allah daal mën ngaa tënk ci ne. Mhm. Serigne Mor Diarra moom. Mhm. la mbokk ma waxoon rek. Mhm. la naar ba waxoon ba mu nelawee ne. yaa aala la bu liitu bil xusuusi maan bi moo mawti aalimi abdil xaribi muftiha yaa aala la mooy yéen waa kër maam balla. moo xam ñi ci sant Mbàkke wala ñi ci sant sa ñëpp. am natt bu rëy am na de waaye yéen a ci ëppale ñëpp. loolu nag day firndeel. Mhm. taxawaayu Sëñ Mor ak mhm. diggante bi nga xam ne moo doxoon digganteem ak bokk yi ak taxawaay bi mu amoon ci digganteem ak bokk yi ci doon seen kilifa taxawu leen ci fànn yi. macha allah nañ koo tënk noonu. Mhm. ba si waat incha allah. ci leeral yu am solo yooyu macha allah eh, nga ñu bu baax a baax ne eh, sëñ Mor Jaara maam Mor Anta Sali jóge na fi bàyyi kooku njaboot mu doon seen bàyyi doon seen mag taxawu leen taxaw boo xam ne taxaw bu mucc ayib la ba tax doo doo jooyuñ bàyyi ba tax ne war nañ jox gi ñu ko joxoon suñ musoo bi itam tax mu am ci cër bu réeree ci musoo bi jox ko suñ musoo maam Mor maam Jaara Buso di di waajuram tax na itam mu taxaw askan musoo bi ñoom tamit dooñu seen nijaay dooñu seen maam yi nga xam ne jóge woon nañ ci loolu nag ci relation yi am ci ci liggéey bu am solo bi nga xam ne borom saam liggéey na ko ci dundum gu gàtt gu barkeel gi nga xam ne dund na ko fi euh, ñu jàll si rek ci beneen point bi ci bi ci tege di sant ba mbokk mbokk yi nga xam ne ñu topp ci internet bi ak fo mboolem fu mu mën nekk ci di ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew xëy na ci kanam tuuti dinaa ñëw ci nga xam ne ci biir réew mi ci bitim ñëpp ci ci Al Azhar TV euh, ñu ngi leen di sant bu baax baax di leen gërëm xëy na dinañ ñëw ci ñoom ci ci kanam ñu jàll ci beneen point mu ñu si Cheikh Abdou Cheikh Abdou Lahad dégg nañ léegi nii sëñ sëñ sëñ Mame Mor sëñ Maxtaar kenn ko junñ na ko muy maanaam sëñ Mor taxaw gi nga xam taxaw na ko ay mbokkam taxaw gi nga xam ne taxaw na ko ku tedd ki ci ci woote bi taxaw gi nga xam ne taxawu na ko ay mbokkam ci li leen yàlla boole mooy mbokk deret gi waaye nag ñu bëgg a dugg ci taxaw gi nga xam ne kon taxaw na ko wooteef sëriñ bi ndax lee moom geneen mbir la moo xam ne mbokk gi moom moo ko waraloon sëriñ bi wax na ko ci ci bi muy tàmbali mbokkuk gi ak mbokkuk iraada gi mbokkuk iraada gi ban ban taxawaay la ci Mame Mor Diarra taxawoon ci biir yoonu murit ngir dëgëral wooteef sëriñ bi waaye tam taxawu taalibe yi ngir leeral leen li sëriñ bi di woote euh, ci tënk jërëjëf sëñ ñu mm-hmm. euh, ngi sant yàlla bu baax ci intervention yi fi jaar mm-hmm. di leen sant bu baax a baax tubaarkàlla eh, wax ji mën na sëkk xanaa di rek di wax ne suñ Jaara eh, li suñ borom boole ak ak ku tedd ki Seex Ahmadu mhm. da koy da doon da doon forcé mhm. ci mu am taxawaay ci wetam mhm. ndax xam nga mbokk bu dul dara mbokk rek suñ borom dafa am lu mu ci santaane kon buñ buñ waxee ne ku dañ ci ak li réer la bay bay xamle. Mm-hmm. ku def ba nga xam ne yow yaay mufti. Mm-hmm. mufti la mm-hmm. nga xam ne tey <coughs> sowu jant bi yëpp askan wi ñu war fii ñëpp ku jaaxale ci masala. boo ñëwee ci moom doo jàll. macha kon kooku dañ ne ak réer. kooku kon dafa war a doon koy joxe bind. ci njàngaleem suñu borom njàngaleem yonent bi alayhi salaatu salaam. te suñu borom moom moo santaane mm-hmm. ak rafetal ak rafetoo ci ak bokk bind boobu nag moom da ko doon tare ci diggam ak sa Ahmadou Bamba Xaadim Rasul mm-hmm. ngir xam na ne suñ borom moo ko ci sant ab liggéey mm-hmm. muy rafetal bokk googu noonu ak jàppale jàppale ko comme ni ñu ko xamee nag euh, ci gëm yàlla googu nekk ci moom ak waajtaay woowu moo tax ba ni suñu borom àttee mu mu mën a gëm atte dogalu suñu borom boobu noonu mën koo gëm ci rakkam jooju si si Ahmadu Bamba <coughs> ci am taxawaay boobu ci wetam muy bi sëriñ bi bi sëriñ bi wootee mm-hmm. lu jiitu sax sëriñ bi di woote mm-hmm. ci xoolu bëtu mbokk rek dafa amoon dafa am taxawaay bu rafet bu mu doon taxaw ci wetam mm-hmm. ci li ñuy nettali sax nga xam dañuy wax ne ci ci ci ci saahir bi ñuy nekk ndaw si Mor Jaara amoon na ay gendiku yu mu daan am ci sëriñ bi ci xam ne ay tasarufaatam bokkut ak ñi nga xam ne noonu la ci des di di defee seen tasarufaat yi des ci ci jàngukaay bi mhm. loolu taxoon na mu koy bàyyi xel mhm. ci nettali dañuy wax ne daana ko daana bëgg sax ñu koy ñu koy bàyyi xel ci bu xéewal ñëwee mhm. loolu lépp kon am na benn bëtug mbokk gu mu doon xool ci moom am na benn am na bàyyi xel gu mu ko doon bàyyi xel loolu nag noonu la ànd ak moom ba màgg ak moom xam nga dañoo mëgantewul lu bari daanaka dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo doon ay maas rek mm-hmm. dañoo toppante rek wax mm-hmm. ñetti at ñeenti at gën ngaa bari mm-hmm. wala ñetti at genn wàll loolu mu ànd ak moom nag ci ci ndaw googu noonu mu ko doon gungee ñu ko gungee nag ba mu doon mag duñ dem ba sëriñ bi li feeñ suñ borom di feeñal ci moom feeñ ci moom sëriñ bi di woote moom it nag mu war a am taxawaay boo xam ne faaw mu gunge ko ku ne xam ne ne suñu boroom eh, ni nga xam ne mooy sunnaam ci kaw suuf mooy képp ku muy yónni dana am lu mu lay dëgërale bu ñuy xool nag ci histoire dañuy gis ne ñaare suñu borom eh, ñu muy dëgëral ci seen mbokk Haarun ak Muusa lañ ci jël exemple mm-hmm. te booy xool foofu eh, ñoom dañoo bokkoon risaala gi mm-hmm. day mel na nag mën nga ko mën nga peese moo boobu noonu ci diggante Serigne Mor Diarra ak euh, seen Touba Khadim Rasoul ndax ci seen taxawaay ak mm-hmm. seddoo gi doon seddoo li sëriñ bi sëriñ bi li mu doon li mu doon bëgg def mm-hmm. li séddoo ak moom mm-hmm. ak ñu mu doon nit ñi ne ñun ñaar ñoo bokk lu ñuy lu ñuy def loolu dalay dalay jox ne la ñu yàlla day mel ne Haarun ak Moussa lañu woon ci ci kaw bu ñu xool nag ci biir dawru boobu muy taxawaayu suñ Mor Jaara boobu mhm. dañ koy mën a séddale ci ñaari xaaj man nga jàpp ne am na boo xam ne moom mbirum biir la mhm. seen mbirum biir la moo xam ne ñoom ñaar la comme ni ñuy nettalee noonu la ko suñ suñ suñ suñ Say mhm. di nettalee walla ci suñu alaaj baara di wax ne mbir mi daal ñett ñett ñi ñoo ko seqoon muy muy sëriñ Mor Jaara ku tedd gi Seexul Xadiim sayida soxna jaar mbir mi ñetti ñi ñoo ko seq ñett ñi daal coow li coow li ñoom ñoo seqoon mbir mi mhm. léegi nag keneen ku doon mhm. daanaka dañ ci dañ ciy barkeelu rek mhm. waaye ñoom ñett ñiiw ñoo seqoon ñoo seqoon jëf kon loolu day mel dañuy gis ne foofu mu mbirum biir la moo xam ne seen ñoom ñoomu neen la yaakaar naa suñu Maam Mor Seye dafay day wax ne maanaam ñoom ñoom dong la woon keneen keneen raxul la neen si Abdou Xaadir moom moo ko daan wax loolu moo wax ne ñoom ñoom ñoom moom ñoomu neen la woon kenn dañu caa fekk loolu day wane nekkoon amoon na loo xam ne moom seen mbirum bopp la moo xam ne mhm. ñoom ñoo ko seqoon seen biir comme kenn ku ne mën nga ci sa ci sa digganteeg sa mbokk mhm. kenn ku ne sa digganteeg sa mbokk bu mbokkoo ga rafetee mhm. dana loo xam ne moom nit ñi duñ ci jot waaye looy lu ngeen seq seen mbirum biir la doon loolu nag amoon na ci seen biir ci xam ak ci ak tax ay taxawaay yoo xam ne suñ Mor Jaara amoon na ko ci mm-hmm. diggam ak sëriñ bi mm-hmm. bu dee ci wàllu saahir muy li nga xam ne moom lañ bokk ak ñëpp nag mm-hmm. suñ Mor Jaara dafa dafa dafa déggoon sëriñ bi comme ni koy nettalee ci ay nettali yu bare bare xëy na si danañ ñëw ci kanam wan na wan yi ba tàyyi ne umpalewul sëriñ bi bi wan na yi ba tàyyi ne leen suñ Mor Jaara umpalewu ma ko umpalewu ba àgg na ci jamono boo xam ne sax waxam naa leen ne ay ay ay joxoñ yu mu leen yu leen waroon. Mm-hmm. muy jamono bu dañuy wax ne sëriñ bi dafa suñ Mor Jaara dafa jékki-jékki rek. Mm-hmm. daal di daal di réer benn jamono boo xam ne gisuñ ko. Mm-hmm. ko wëree ba ba gis ko. fekk ko mu toll ci ab aaya bu mu doon jàng. xaala xad xad ujiba daawatu kuma. fastaqima aaya boobu noonu nga xam ne li muy firi mooy. suñu borom day mel ne day wax day mel ne day wax ak ñaari nit naan leen. Mhm. li ngeen ma doon ñaan wuyusi naa leen. Mhm. nangu naa seen ñaan. Mhm. muy mel ne loolu moo nekkoon mooy li ma doon diñ ci ginnaaw tuuti diggante Moussa ak Haroun. bu fekkee suñ Mor Jaara muy jàng aaya boobu. mel ne bi ñu delloo sëriñ bi ba nettalee ko xaal ak wax ma nañ ko fekkee. ak lañ ko fekk mu mu toll ca. sëriñ bi da leen a wan ne loolu laa bëggoon ngeen xam ko ci moom. muy day mel ne da leen bëggoon a wan. maanaam moom diggam ak suñu Mor Diarra suñ bi daal def na ay isaara def na ay ay ay ba tàyyi mhm. ngir bëgg taalibe yi xam mhm. mook si Mor Diarra ban lan lañ lan lañ séq ak lan la ñuy doxal macha allah mooy li ngay wax léegi nii ne mhm. euh, ñaar ñu ñu ni bu ñuy dem kan mooy wax ak kan mooy noppi loolu bu ñu koy xool boo demee benn benn njàng bu tuuti rek ci lislaam da ngay jàng an nabi di jàng al mursal ñaar yooyu bokkuñ bokkuñ nabi ak mursal bokkuñ ci biir booy jàng tamit histoire de l'islam da ngay gis ñu lay wax ne la. Mhm. Eh, limu yonente yeeg. Mhm. comme ni ko sëriñ bi jàngale. Mhm. amma jamiul ambiyaay war rusul. xam nga da koo da koo séparé. foofu da ngay gis mu ne xakadun. minal ulufi. nga xam ne foofu ngay xool da ngay gisoo eh, cent vingt quatre mille. ñoom ñooy boo leen boolee ñëpp.